dani sama waay da jamiñal jaara busuk wala ma sebi jaara jurujub voilà salaamaaleykum mbokk yéen ñi safoo seetaan clip Dakar 221 point com yaakaar naa nag tey du ngeen présenté jëmm ji ñu jàkkaarloo tey ku nekk xam na ko ci àdduna travers euh, site internet bi travers euh, YouTube bi macha allah tey muy Serigne Abdoulaye Wade waaye tey nag dañoo déplacé wu ñëw fekk ko fii ci Mbambilor yaakaar naa muy borom xam-xam di yëngu ci li nga xam ne mooy lasraar di yëngu ci li nga xam ne tey moo di ñaan waaye tey dañ ko fekk ci beneen méthode tey dañ expliqué li nga xam ne ci ngeen yaakaar naa arrière plan bi ngeen euh, li ci biir muy fond blanc bi ci biir macha allah ci kanam tuuti dañ ci yaatal mu li expliqué ñu lu bëree bëri bëri tey Serigne Abdoulaye ñu ngi lay siyaar dara la ci kii Dakar 221 macha allah aouzu billahi min achaytan arrajim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 waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yal na yàlla nangu ziar yëpp di kontaan ci dalal leen yéen waa Kilim Dakar fii ci suñu kër ci Mbambilor man Serigne Abdoulaye Wade fas yéene waxtaan ak yéen à travers tamit Kilim Dakar waxtaan ak àdduna bi yëpp ci xam-xam bu wér te leer ci asraar ak njëriñ ci doomu aadama yi waaw waaleykum salaam macha allah yaakaar am na solo nuyu bi am na solo aussi tam li ngeen yaakaar naa li wax dañ na nga war a jàng macha allah bala nga dugg ci euh, wàllum ñaan macha allah waaye ñu wax rek toujours rek di profité ne leen numéro baa ngi noonu ci barre d'écran bi képp koo xam ne soxla nga ko rek ak jafe-jafe boo am rek boo nekk ci àdduna bitim réew yaakaar naa boo ko woowee incha allah ak kursam gi yàlla na def incha allah sa sa sa jàngara dina saafaraw kon sëriñ bi tey ñu fekk la fii nga teg ay tableau tey te nga war a étudier lu bëree bëri ci xam ak li nga xam ne moo di set euh, ci ay cible mm. yaakaar naa mm. tey sëriñ bi te euh, li nga xam ne mooy wàllum ñaan nga nekk ci macha allah def lu mucc ay ci àdduna bi yaakaar naa di mm. dimbali ay doomu adama mm-hmm. sëriñ bi tey euh, lan moo waral yi nga teg tey sëriñ macha allah rabbi waa Click Dakar deux cent vingt et un bi mooy ñaan léegi dafa tumuraanke te ñu mel ni man xam nga ko dem ba ubbi chaîne YouTube dafa jàngale xam-xam rek dëgg la ci li nekk muy mystique cinq mille neuf cent quatre-vingt-quinze yi xamee nañ ma mhm. waaye TikTok bi tamit maa ngi fay jàngale mhm. ku bind mystique ci cinq mille neuf cent quatre-vingt-quinze mhm. da nga fa gis sama nataal bokk naa ci ñu fa gën a ràññee kon nëbbatuwuma li may def ragaluma a mais li tax ñuy génn du bëggub dërëm du bëggub xaalis bu dara leen rek a tax mooy maanaam leeral nit ñi ne xam-xam nga am ba léegi. Mm-hmm. parce que des fois suñu mbokk sëriñ bi ni ñuy dundee dafa yomb di toog mooy bu rafet toog sa fauteuil bu kii climatiseur tiim la moo xam ci appartement meublé nga nekk wala lu mënti doon ne léegi boo ñëwee danaa la jàppal jàll boo ñëwee danaa la xaral weer <laughs> boo ñëwee danaa la xaral géej boo ñëwee danaa la nàngam nit jox la xaalis bu takk xamoon mu def ba am nga encaissé lekk te dina raw loolu du àdduna Mm-hmm. nañuy sonn ci mbir tey wane tamit mbir yi ni muy doxee. ñaan mu nangu nag dafa am ay conditions waaye nag bu fekkee ne def nga la war lépp kii ñëw di ñaan lu si yow andi indi yaakaaram yow nga boole ci yéene def la ca war yàlla du gàntal loolu laa gëm ay détails mm-hmm. waaye nag lépp nañ ko teg ci xam-xam. Mm-hmm. waaw macha allah wala ñu ba pare après ñu am waxtaan dëgg tuuti rek gis nañu en fait sa ñaan tam am na xam day ñëw rek tey. nga jox leen li nga xam ne tey dañ ñëw alors que dama bëgg a ñaan Abdoulaye Wade nga ñëwal nga def suuf yëngal jox leen te ba est loolu te teetul jaaroo jaaroo fi nga a jaar est loolu da du yoon mhm. ñaan dafa am méthodologie dafa am fooy jaar dafa am fooy jaar mhm. te loolu dama koy résumé vite fait mhm. ñaan dafa am méthodologie boo xam ne te ngay teg ci kuy jëfandikoo asraar waxuñu kuy xam nga nag ku nekk faw ñu nangul ko kàccam am na koo xam ne boo ñëwee sunguf ba maîtrise na ko maîtrise boo xam ne boo ñëwee rek moom jot na ne bu defee lam lay defal ci suuf sa aajo day faj. Hmm. loolu xel nangu na ko parce que day fekk mu maîtriser ko. Hmm. waaye bu dee asraar en tant que tel. Hmm. dafa am fooy jaar. ñëw ci loolu léegi fi bi méthodologie. méthodologie nag li ma mooy. bu nit ñëwee ne la damaa yaakaar ci yow ci samay soxla ngir nga faj ko. li nga war a njëkk a def mooy laaj ko turam. si pourtant jox ma benn tur rek au hasard jox ma yow nee ma yow nangam laa tudd. Idali Idali Idali Sène. léegi par exemple Idal Idali léegi dañ ko bind en arabe. Hmm. parce que lépp ci chiffre lay lay lay fonction. Hmm. léegi tey Idali bi am na ñu koy bindee ayin. Hmm. parce que alhamdulilah bu dee en français am na ñoo bu dee da nga ko xoolee ci français pour bind ko noonu ci arabe da ngay juum arabe. booy bind tur nit en ci turam en arabe di ko chiffré dafa am noo koy bindee. du rek ñu ngi ko déggee ba ko bindee. loolu rek des fois day indi problème ci waaw c'est vrai. waaw léegi ñu di au lieu ngay jël da ngay jël ayin. ay xam-xam waay doole day jël waaw. lu leer la wax. bu ma neexee tàggu ko nii bu ma neexee xëjal. <laughs> nii laa koy bindee. bu boobaa sax day duggaat ci tur yàlla bii di ànd. ànd ànd ànd ànd. macha allah waaye bu ma neexee tamit xëcc ko xëcc ko ay lay waaw dooli ci alif dooli ci yaa bi mu xëcc ayn bi mm. mu nekk idal dafa leer leer mm-hmm. seen mm-hmm. mooy sa sant mm-hmm. bind naa ko lii balaa dara di xew dama ko war a chiffré ndax am na loo xam ne dana ci ballee léegi da may jox sa tur yaay jox choisir benn tur rek au hasard bu mu nekk sa tur yaay boobu ah. ndax code dañ koy code mais ah, jël benn neen par exemple sa yaay naka la tudd Faatumata wala Fatou Seen waaw Fatou a exemple waaw léegi Fatou Seen mën naa bind Fatou Mata Fatou Mata Seen waaw parce que tur olof yu bëri maanaam ci arab la juge cosaan la maanaam ñu bëri ñu tuddee faatee faatoo yëpp Fatou Mata la mhm. mhm. maanaam cosaanu tur woon ca langue arab mhm. maanaam fañ ko cosaanoo da nga ko war a xam ko bind mu correct parce que moom moom ñi tudd Ablaye ñëpp Abdullahi la leen di caractérisé mm-hmm. muy jaamu yàlla mooy mooy fa la cosaanoo fa la cosaanoo waaw léegi ko defee lii mm-hmm. boo xamee mm-hmm. ci lii nag ngay sukkandiku pour mën a ñaanal nit pour mën a ñaanal doomu adama léegi su boobaa xam naa ne boo bu ñu amoon machine dana ma gën a noppalal biir waaw waaye waaye même bu ñu amul machine garaawul pour temps bi bañ bañ ñu kii mën nañ jël mën naa mën naa mën naa lii li ñu koy doyee mooy idali bii mhm. moom ngay ñaanal war nga ka balaa dara di xew seetal ko ay biram moo xam ci seet la mhm. moo xam ci istixaara la mhm. moo xam ci xel mu juum ndax nit boo bëggee jëpp ay mbiram da nga ko war a jàpp istixaara xel mu juum ak seet seet bu mu mën ci doon nag lu waay di seetee man nangul naa la ndax nit moom da ngay maam léegi nag idal bii ci turam képp moom xam nga la nga ci war a mën a xam mën nga cee xam saraxu raw xaanam Mm-hmm. ci turam ker turam mun ci xam saraxu rawxaan balaa dara di xew mun nga xamaale tamit ban tabixa la bokk moom ida bi te loolu dalay jàppale ci ñaan bi léegi nag ci biir lii nañ calculer uh-huh. jëlal soixante dix parce que xaañin soixante dix la soixante dix plus dix parce que fii plus cinquante ñaata la la jox. quatre cent soixante allah gis nga xam-xam. quatre cent soixante ay waay sëriñ jàng leen. waaw ñu jël tur yaay. Eh, eh. <laughs> jëlal tur man loolu am na dama gis xam-xam damay fa fa bii. quatre vingt la plus un parce que dañ ko xëccat alif. Mm-hmm. muy quatre vingt et un. waaye xam-xam fay ñu mbaam la waay. parce que dèjà temps marbuta sëriñ yu bëri mënu ñoo xàmmee chiffre am temps marbuta mooy li mel ni xaaku bi temps marbuta bi mujj mooy comme muhabbatan hmm. moom poids misigam cinq la bokk la temps bi nga xam ne quatre cent la allahu akbar waaye xam-xam waay nañ ko bàyyi xel sëriñ hmm, hmm. léegi jël nga ko plus cinq jëlal plus trois cent encore plus dix plus cinquante mu jox la ñaata quatre cent quatre-vingt-quinze quatre cent waay waay waay li koy yombul léegi nag base bii nag ci la ñuy xamee lépp lépp bëgg a xam ci yow. allahu akbar bu dee istixaar rawxaan ya danañ jël sa tur sa tur yaay am lim buñ ko booleel. boole ko boole ko li wir di ko ci turu rawaan ba war. pour mën a jàpp sa rawaan pour xam bu fekkente ne loolu amul. mun nañ ko jaaree ci turu yàlla lu mel ni xabiiru mhm. nga xam ne moom pour wàllu xibaar lay dox mhm. wala ko aaya latif bii di alaa yaxlam man xalaqa wa huwa latiful xabiir anoo la mhm. bu dul loolu nit ki mun na ko jaaree ci ràmm wala feneen waaye man ci baasu asraar laa nekk muy calcul léegi nag ci sa tur bii sept cent soixante-quatorze boole ko sa turu yàlla lii quatre sa biddiw bii ak sa turu yaay bu ñu ko divisé par douze day am un ba douze. ci division bi. bu fekkee ne amul divi amul res ça veut que division bi dafa exact kon douzième position bi lay occupé. par waaw par waaw boobaa xam ne lii mooy sa biddiw. lii mooy sa xatixa lii mooy sa burj. Ah. burj nag boo ko déggee mooy mooy signe mooy li nga xam ne doucement yi constellation du zodiaque foofu rek danañ xam sa biddiw balaa dara xew ak sa xatixa. bu dee jaaree fii sa date de naissance. sa <laughs> date mën nañu xam exactement ban lan mooy sa signe horoscopique te signe horoscopique mooy burj te burj boobu am na tabi xam bu mu jàpp am na biddiw bu mu jàpp foofu moo gën a yomb ci date de naissance boo ko fa jaaree mais na nekk date de naissance bu exact bu am na hmm. bu ñu jógee foofu bu ñu bëggee xam yow Iran li nga bëgg xaalis comme ni ko ñëpp bëgg ak mën nañ ko tënk ci am wàllu dunya mooy cent soixante-quatorze ah, am wàllu dunya mooy cent soixante-quatorze ah, bu ñu bëggee tey jaxel nga juum génneel la sarax bi tax yow nga am am wàllu dunya muy alal mbooleem xeetu alal bu nit di sax dañuy jël sa tur doole ci sa tur yaay doole ci limu cent soixante quatorze lim biñ ci dolli nag jarul pare danaa ko maye plus six soo ci plusee six nga diviser ko par neuf soo ko diviser par neuf dana am neuf buntu yoo xam ne ci musala bu nekk sarax lay wax ci un ba neuf lay taxaw mu wax la sarax bi na xam ne boo ko génnee sa aaja faju ci wàllum alal balaa dara di xew allah akbar bu ñu génnee sa biddiw ak sa tabixa mm. mun nañ la wax sa saraxu tabixa muy na tax mu naari tura bi hawaa il maa il wax la ban tabixa bokk bu ci nekk ñu wax la yow lii mooy sa tabixa lii mooy sa sarax ci biir lii tamit sa tur sa tur yaay am na lim buñ ciy dolli buñ ko buñ ca doolee lim boobu dix de ko par sept moo sa sarafu xarina mm-hmm. xarina mooy ki nga àndaale bi nga xam ne nit da koy judduwaale wax nañ ko ci alquran mm-hmm. kulli shay'in xarinun maanaam ci tënk rek loolu laa ko mën a waxee na aay yu bëri yu wax ci alquran mais dama ne li kulli shay'in xarinun li ma ci jublu mooy képp juddu judduwaale nga xarina te xarina boobu laaj sax loolu xel mën a jóg da koy ci sa tur sa tur yaa ak lim biñ de mm-hmm. dañ koy génne sa tur kese moom moo lay jox sarax bi nga xam ne mooy sa saraxu rawxaan sa saraxu rawxaan nit koo gis am na rawxaan bu muy dox di ànd moom kon loolu ñoo koy basé ci sa nit ki yow ci la yow la ko sa tur kese divisé ko par neuf mu am un ba neuf mu wax la xam te yéewu ma yéew na yéewu naa tey parce que la lii la léegi nag su loolu yow ci biir loolu li saxaar bi nag da nga ba xam nit ki la mooy jafe-jafe boo ko fanaanoo hmm. lii mooy problème am lii moo ko waral mhm. lii moo koy saafara waaye soo génnee sarax sàngam mhm. dana tax aajoom fay su boobaa nag boo xamee loolu yëpp mhm. lan moo ci tegu dugg ci biir asraar bi waaw léegi nag dugg ci biir asraar boo ko déggee mooy maanaam bu boobaa nag nga xool méthode ya ngay ñaanalee nit ki moo xam cangat la boo ko war a bindal war nga koo xam moo xam turu yàlla la boo ko war a wérdal war nga koo xam moo xam xaatim la boo ko war a dëddal war nga koo xam su boobaa nag nit ku nekk am nga sa xaatimu bopp nga nga war a jaar ci asraar pour doog koo mën a ñaanal mu lu bu la nee danaa la ñaanal dalay nax war nga xam tamit nen mu xawaati moo ñëw foofu nen mu xawaati waaw maa ngi foofu parce que am na solo am na solo allahu akbar léegi nag xawaatim hmm. dama ciy joxe benn xaatim bu simple parce que jàng nañ ci xaatim xaatim yoo xam ne hmm. takk na takku waaye nga duuf lépp ci nag bi xaju léegi nag dañuy dañuy limité foofu hmm. ma joxe benn xaatim bu simple boo xam ne ci faj xaajal doomu aadama ji la jël xaatim bi nag méthodologie bu yomb la lu yomb la ci yow xaatim boo koy rëdd nag <laughs> ci li ñu sëriñ bi bëri bàyyi woon waaw xaatim bismillahi rahmaani rahim la ci rëddin bi rek ñu bëri neel bismillahi rahmaani rahim yemul foofu alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin allah mooy xaatim loolu Mikaayilu Asraafiilu Azraafiilu mbam mi loolu la ngeen am xamu leen ko de léegi nag soo paree yow ba tey ci exemple ci yow laa nekk juróom naa idali seen quatre mhm. cent soixante quatorze mhm. xaatim bii may joxe mën naa ko bind sax en France comme mën naa ko bind en arabe mhm. léegi xoolal méthode bi may jaar ñaanalee nit ginnaaw xam naa ay saraxam ak lépp lu aju ci ñoom te xam bëgg naa ko jaaree ñaanalee ko ci xaatimu musalas musalas bi nga xamante ne moom la ñëpp xam ndax dafa gaaw ci booy sikkar nga ñaanal ci nit aajoom faj lu gaaw la ci faj aajo lii mooy musalas xëy na dinañ ci mën a ñëw ci émission yi yeneen yi waaw dafay jël Italie quatre cent mooy course yi wërsëg wala moom moo am soxla bu mu mënti doon lii méthode xaatim la bu garaaw damay jël quatre cent soixante ko doon su moom laa ko dugal fii ma plus si un dugal ko ci buntu bii ndax buntu mooy na të ha mu mooy ñeenti tabax yi waaye léegi dugal naa ci quatre cent soixante ma plus un quatre cent soixante quinze ma plus un muy quatre cent soixante seize pare naa ci Idale moom dugal naa li nga xam ne moom moo ko concerné ci jëmm mm-hmm. waa ban tur yàlla laay ra ñaan ne Idale war ginnaaw naa ci xam naa ne tur yàlla par exemple bii bi euh, maanaam fattaaxu baax na ci idda bi parce que peut sa fàqu lay bëgg wala razdaa baax na ci idda bi léegi bu boobaa damay jël tur bi fii mooy baytu fi la tur bi war a placé wo parce que moom mooy condition ne li idda bi bëgg fa ma war a jaar ba idda bi ma defal ko li mu bëgg ci tur boobu laa koy jaar comme moom mooy taxaw ci baytu xub fii mooy baytu xub léegi nag bu fekkee nañ fattaaxu la 489 mhm. comme moom 489 moo war a taxaw fii dama ciy moyen 1 mu nekk 488 ma dugal fii 488 489 door ñëw muy fattaaku 489 490 ñoom ñett mag nañ léegi nag ban lim laa ko koy wirda waaw biir lim bi ma ko war a wirda dama war a def de telle sorte que ñaari lim bii mm-hmm. mën leen a génne ci lim boobu mm-hmm. te te lim bi du dara day des dëgg la léegi nag bu boobaa su ma neexee ne idali comme ñaata lettre ñoo composé turam ma xool une deux trois quatre cinq six sept sept lettres ñoo composé surtout. Mm. adadu suruuf loolu lañ tuddee adadu suruufiya mm. su boobaa nag comme fattaaxu laa jël sept cent quatre-vingt-neuf su ma neexee multiplier ko par sept parce que dama ko connecté ci idal su ma ko multiplier par li lim bi ma jox moom laay jël moyen ci ñaar nit dugal fii dugal fii mu jeex ma wër la ko fattaaxu ko idal jox ko benn mu takk jox ko benn mu diwoo bi teg sama àll waxaanja su ma mm-hmm. neexee wala jël ko te teg sama wet wér dal ko aajoom mm-hmm. xañ jëlal nga calculer calculer waaw allahu akbar su ma neexee tamit. ginnaaw ginnaaw tamit su ma neexee. bu dee lim bi bu ma ko multiplier ci adadu xuruf turu idali day gudd. mille cent onze war naa ci mën a génne lii ak lii. oui calculer xool ba. mille cent onze ah? waaw mille cent onze. mooy. mooy quatre cent quatre vingt dix. mooy quatre cent quatre vingt dix. mooy quatre cent soixante quinze. mooy quatre cent soixante quinze. mu jox la ñaata. quarante six quarante six quarante six laay dugal fii. allahu akbar quarante quarante huit xaatim bi mat na tëj na léegi vérifier ba xam xaatim bi damm na ko pas jëlal quatre cent soixante quinze xam nga mille cent onze moo couvrir lépp nag waaye sous l'emprise de fataaku parce que fataaku moom mooy conditionné xaatim bi mais mille cent onze moo ko gouverné parce que mooy lim total bi nga xam ne moom laa ci inséré mooy laa taxaf waaw léegi nag jëlal mille cent jëlal kii quatre cent quatre cent plus quarante six plus quarante six plus quatre cent quatre vingt dix plus quatre cent quatre vingt dix mu jox la ñaata mille cent onze mille cent onze jëlal quarante huit 48 plus 489 mooy fattaaku plus 489 mooy fattaaku. 489. plus 474. plus 474. mu jox la ñaata. 1111. yéen ñëpp jël 488. xam-xamu yi nii de. barke Sëriñ Saliou waaw plus 476. plus 476. plus 47. plus 47. mu jox la. 811 xaatim bi damul fenn. 811. tukku mu def. waaye xam-xam bi wàllu ma tuut. lii daal moom. barke Serigne Sall ak tënk la. xam naa ne temps bi moo ñu. waaye amaana bu ñu ñëwaatee ci yeneen mm-hmm. émission. ci Click Dakar. du ñu bàyyi kër gi la maison du ñu bàyyi macha allah vraiment am na solo dégg ngeen li nga xam ne sëriñ moom la moom la wax ci li nga xam ne moo di euh, ñaan li nga xam ne moo di xaat bi allah li nga xam ne itam pour nga xam nit ki dugg dugg dugg ci moom ay turam dëgg-dëgg fa ngay jaar mm-hmm. buntu yaa ngi nii kon képp koo xam ne rek euh, macha allah euh, soxla nga ko rek macha allah numéro baa ngi noonu daw ma d'écran képp foo mën di nekk monde bi rek boo am na li nga xam ne mooy whatsapp mm-hmm. jafe-jafe boo am incha allah na la duggal sa biir kër macha allah ba cent franc li nga xam ne mooy sa jafe-jafe sëñ bi lan ngay tàggoo rek eh, yaatal bi dëgg-dëgg émission bi incha li may tàggatoo daal mooy mbir yi nañ ko teg si yoon mm-hmm. koo xam ne daj na coono bu ne bu dégg bëccëg ñëw yaakaar la ci soxlaam ngir na fajal ko xaajoo nga la waay bu lekk xaalisam tëdd na la wala nga ne lekk enquête naa borote wala enquête naa jàpp sama njàmbur fexe leen ngeen def yitte képp koo xam ne yëkkati na alalam yaakaar la ci soxlaam ngeen def ci yitte la ca war ci xam-xam ngeen def ko waaye mënul ba of ndax kenn lekk lu dul sa wërsëg ku lekk nag lu dul sa wërsëg da nga ko gëqiwaat i nu la neex wasalaamaaleykum jërëjëf